mbokk yi ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkoorwaat ak yéen nee leen comme ni leen koy toppale lépp loo xam te ni moom moo di actualité lu jëm ci làmb rek dinañ leen ko toppal mbokk yi tey fi xam ne fi la ñu nekk ñi nga fi nga xam ne moom moo di Ikiri Waalo ñu waxee Ikiri Waalo nag mu bari ay ndaanaan bari xale yoo xam te ni dañoo nekk ci làmb di ci góorgóorlu rawatina tey jëm ji nga xam ne moom la ñu toogal kenn dootu ko naatable mbaa duñ ko présenté ci làmb bu ñu ko waxee muy Maguette Seck Boy Niang 2 la ñu toogal war a waxtaanee lu baree baree bari ci làmb ci digënté Lac de Guiers ak Siteu ndax bobu légui tamit kèn amut ak mom jotaay ñu war a lu bare bare bare bare ak combat Alioune Seye bi nga xamné mom lañu jëm li nga xamné mom modi samedi digënté ak Modou Anta ma ngi lay nuyu magget ci lolé wa ma lay fay di la ziar di nuyu aduna di bëggee ñëpp di ziar ñëpp di wax ni képp ko xamante ni yaa yëngu ci lamb rek ñu ngi lay ziar di la bëggee di la jox sa waccu way di wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dimanche bi passé ku ne xamné ne digënté diggante Lac de Guiers la ak Siteu nan nga jàngatee boobu combat. waaw la de Guiers ak Siteu làmb la làmb joo xamante ni làmb ju neex la làmb la joo xamante ni làmb la ju ju jaar yoon ju ju ju Lac de Guiers bëre ko ci jom ak fulla ak fayda yàlla may na ko ndam ñu ngi koy feete daal noonu la demee waaw. làmb ji ni mu demee bett wala bettul. non ji musuma bett parce que tamit isam lu ma la nit moom xam nga sooy xare. soo tourné war ngaa gis ñi nga dëkkal. war ngaa gis ñi lay jàppale. mais soo tourné gisoo lenn tamit war nga mën a téye sa bopp xool li la arrangé nga def ko la dëgër noonu la def mais làmb ji dafa waroon nekk làmb joo xam géejawaay gi yëpp dañoo waroon génn soutenir la dëgër géejawaay gi yëpp génn jàppale ko waaw loolu. génn yow bi ko nan la la def yaa ngi woon stade wala. waaw maa ngi man bi ma gisee loolu daf ma metti ak dégg tamit la dëgër jënd na un cinq millions billets loolu tamit isam lu ma lax baax géejawaay daal mi ngi noonu daal géejawaay naqari naa nekkee. naqari naa dundee naqari naa xama yaa ma gën xam dal wa diko wax ne ko tamit xama na japp to baye parce que lamb mom man mom lima gis ci lamb quoi ku mënul bëri dang koy japp nga daan mais la dëggeer mënuñu ko daan ba paré ku nekk diko sikkel lolu anduma ci wa man sumay wax damay wax ta yalla tax quoi waxuma pour kenen tax la dëggeer du dërëm bu may may du dara lu may jox mais sumay wax damay wax lu nekk te lolu la ñi ak ngank lamb yépp lolu lañuy wax mbeur mo xamanteni ni nga mënul da ngeen koy daan. kon sita Siteu daal mo war la diviser non non sita moy xalé ñu may ko sens moo war a yéeg ci kaw Lac de bi ko ay moroom magam mayee sens moo war a yéeg ci kaw da leen dem fekk si leen dox seen kaw daan leen Siteu moo war a dem si kaw na ñëw imposé jàpp la de Guiers daan ko noonu la demee waaw mais mais day am làmb yoo xam làmb programme la soo niilee sax da am coow loolu dal la koy wax voilà mais Lac de Guiers nag voilà voilà noonu la demee waaw da ngay am coow noonu la demee mais Lac de Guiers moom ku ko fi naan déjjët di ko daan kooku la ñuy xaar hmm. noonu la demee ñi nga xam ne dëkk Géejawaay ci bisu Lac de Guiers 2 nga gis ko nan la la def. waaw ñàkk teewaay bi moom isam lu ma la wax ñàkk teewaay bi moom du si dara man moom su may bëree di gis nit ñi sax laay pression su ma bëree gisuma kenn si laay gën a am jom am fulla am fayda parce que nit nag isam gumba yaa koy woomat mais lu koy may sarax moo koy may boppam. voilà noonu la demee man moom su may bëree ku ma gis baax na ku ma gisul baax na ku ma gis dina ci dolli sama jom mais ku ma gisul du ma wàññi dara. ñàkk a déggoo kon ñu doon wax ci géej waaye daa mel ni feeñ na keroog. non ñàkk a moom loolu am na yàgg naa ko wax yàgg naa ko coow parce que tamit gis nga nit soo nekkee si mbir li nga bëgg da nga war a yéene ñeneen li nga yéene sa bopp nga war a yéene ñeneen parce que loolu mooy mooy ànd mais ànd tamit su fekkee ni ànd yow ànd jaayante tàggoo jëwante loolu doo leen dem yàgg-yàgg ay fen du ma 30 ah waaw ay loolu waykat bi moo ko wax voilà mais dafa waa mais a gisee nee na ay fen du mat te loolu dëgg la nit looy def te gëmoo ko lu mu yàgg-yàgg dafay feeñ looy def na gëm ko suñ borom rek moom moo lay guider moo lay jàppale voilà noonu la fa dem mais nga ko ndax sénégalais yi bari da ngeen doon vëlëfee yéen waa Guédiawaye sénégalais yi ne juboo nañu nekk nañu benn mais keroog dimanche def ko woon non non non non keroog dimanche kan mau teewul ci làmb ja. barina kan ak kan. bari na tonneau yu nekk géej waaw waaw mais mais mais la dëgër am bis yoo ay open press ay mbër yo yo xamante ni du am jot. ñëw voilà noonu la demee non non. gis nit day am temps yo xam da nga koy am am temps yoo xam da ngay perdre sa temps noonu la demee waaw. mais ci bisu mag ndax gis nañu Modou Lo dem ci Siteu. non Modou Lo loolu loolu mu def noonu da koo def noonu rek pour semblant mais loolu noonu du lu mu def. waaw déedéet du lu mu def pour pour. kii yëkkatiwu ko nu mu tuddati. Siteu yëkkati ko ah, Mansour Mansour moo ko yëkkati. mais ñëw na Modou Lo ak Mansour waaw loolu munu ñàkk day ñëw tuus dem. loolu munu ñàkk mais loolu moom sax la dëgër waru koo def dara loolu. loolu war lu mu koy def la dëgër bëri ay tàkku tàkkusaan loolu lan la ko war def nit daal gis nga nit ki yaa koy tibbal mën nga koo tibbal sexal ko mais sàq mi moo koy defal boppam. voilà noonu la demee la dëgër nag moom lii muy def ni man ànd naa ci. soo demee ba xam ni carrément kat ñii kat lii lañ bëgg ma def lii loolu dara nekku si waa yow gérer sa bopp gëm sa bopp waaw au passage ma bu ma avant may wax dama waroon bëggee bala Gaye sama tête de fure ziar ko bëggee ko ñaanal ko wér ak wér la mais xel day fat maa ngi lay ziar Balla Gaye di la bëggee di la jox sa wàccuwaay di ziar képp koo xamante ni yaa ngi école de lutte waa Gaye waaw ñoo gis nga ma xamal la benn affaire ndax ndax dëgg ne kenn du ma sacrifié. nit mën nga koo sàng mais jikkoom mënoo ko sàng. nit mën nga ko sàng mais jikkoom mënoo ko sàng. Kan déedéet non dama ni mbëri mbër mbër bëggul lu dul boppam mbër rek la bëgg gis nga ma xamal la affaire nit ki bu ni guddi nga lumbu du ci la suñ borom di dogal li nga war am lépp yow war nga mën a ne carrément lu ñëw ci yow suñ borom moo dogal soxor yab yàlla nga yéene ngay xool nit di ko lu bon loolu isam lu Lolo ku manké ku manké conscience rek mo koy def nit lu mu am nga yéene ko ko lo ñak xamni li suñ borom mo la ko xañ du mindeef nit ko lu wara ñew ci yow kenn mënu ko té lu wara bo ñakit kenn mënu ko kenn mënu la wax ba do ñak kon nak suñ borom mom mo fi nek nit mënu yàqal nit ku nit mu and ci rek suñ borom ma ci and voilà man sama aduna xam na la ko jàpp kenn du ko sacrifier wa non loolu waxam la ah slogan la xamna motax mu di wax mais fi kenn mënu yàqal kenn non dama ni waxam la mais fii kenn mënu yàqal kenn kenn moo yàqalaate kenn mënu yàqalaate tey jii gis nga man ma xamal la benn man tey jii su ma xamee ne carrément yow muy kat doyoo ma ci sama bis bi dama lay jël tege ne dem dund leen man duma xel ñaar si nit duma kii képp koo xamante ni damay jëflante yow damay dali jox sama xol ba mu jeex nga delloo ma li nga moom parce que loolu rek moo fi am mosoo gis ku bay mango am neew waaw jamono ji li nga bay rek moom ngay góob wala noonu la fa demee kon nag ku yéene nit lu bon yow xamoo waaw yow nit tabax na këram ba mu egg dugg si waaw loolu am na gis nañ fi ku tabax këram ba mu egg moom dugg si mais kon kuy soxor li yéene nit la leneen kooku yow da nga xamul rek yàlla nañu yàlla suturaal daal nit ñi daal xama lu nit ku nekk li sa xol yàlla na ko suñ borom fay. ginnaaw ginnaaw si taag Lac de tàqalikoo nañu. Lac de Guiers fan la jëm ci làmb. waaye Lac de Guiers ku ko jëlu si làmb da nga ko ragal man waxuma pour lancer fleur waxuma pour dara damay wax pour sama diggante man ak sama borom. man sama bammel man rek ma ci dugg la dëgër dafa reyante ci lamb ba bokk man la dëgër xam la la bëgg suy bayyi lamb ji nako nit ñi japp daan ko dumo ko daan ko mu genn lamb ci su fekkee li ñi wax ñu ci ñom mais tay dafa naqaree bëreel day rasu wa mbeur so ñew wara ñew pour ko daan da ngay ñew pour daan ko mais ñew nga pour waro ko war ko daan bu nit mëno ko daan bëgg ko sonal ak wax ju bari loolu. mais kan lay bëreel tay bokon li ma lay ser ñu. la dëgër ñu mu wara a bëreel bari na ci lamb Tapha na fi nek amul combat. waaye Tapha la dëgër ko daan du ñew jël ci revanche man kuma daan damay jël sama revanche. ah ku ci jëlul la dëgër da ko ragal. wa non la fa wa ci ta mom ku ko bañ ci lamb rek sax lu ma lax bobu bobu xamoo lamb ci ta mom mu toy ni mën naa bëre ku nekk ndax mbolom ak dayom ci lamb ak ciom ci lamb boole na ku nekk. suñu waxante deug ah. ñu koy wax sa doyen de wa non lolu moom ñepp mu xol moom ñepp combat la ci ta moom ñepp combat la mbeur la bo xamanteni ni la Lac Franc man la de du beure Franc la lay doye Franc Lac de du beure Franc day dem xol leneen lu gëna ki kii su ko nexé tamit Franc mom exemple lu ma lax baax ku koy jël da ngay bëgg làmb làmb jug rek motax nga diko jël mais Franc amna yu ci yoon yu mu wara jaar ba léegi mais tamit la de mo moy xol xool soam bu ko nexé mu jël Franc may ko sens su ko nexé mu jël xaar rëg-rëg bu ko nexé mu xaar kenen ak kenen parce que grand contre petit dafa xew soy warante da ngay jël far nga tekko na ne la sooy waxtaan si da ngay jël far nga tekko na ne la Siteu actuellement ni ni ci lamb ku ko jël mom moo lay fay wa parce que non non mo ay ñooñu nonu isam lu ma wax ño tolo ay ño tolo ño tolo mbolo. parce que lamb la jo xamanteni lamb làmb bo defé bi billet quinze mille day fess lamb ja lo xamanteni lo len fay jar na ko walla la fa dem tay ko ci melni maxim Max ñu gis mu wax ben cadeau ne dafay dugal li nga xam ne moom moo di recours ndax Lac de Guiers dafa am benn sorte de libéré boo xam te ni arbitre yi joxuñu ko avertissement pour ñu casser verdict bi pare nga woo noo loolu du sotti libéré moom li muy wax noonu du sotti libéré ñoom ñaar dañoo ànd gërë ba bëre ba génn saaku yi. ànd bëre ba génn saaku yi ñun ay mbër lañ. xam nañ règlement yi nu mu demee boo leen àndee bëre ba génn saaku yi dañ leen boole ngeen dugaat ci biir su dee avertissement la ñuy joxe yéen ñaar ñëpp lañ koy jox mais foofu du yoonu sax jox avertissement boo leen àndee yéen ñaar bëre di bëre bëre ba jéggi saako yi loolu dañ leen woowaat ngir ñëw bëri waaw loolu la loi bi wax waaw. mais tey bu ñu xëyee CNG joxe ki nga xam ne moom moo di si kase euh, verdict bi nan la leen. non loolu munu nekk sa CNG du joxe loolu loolu mënul nekk CNG mënul joxe loolu parce que ñoom ñaar dañoo bëre ba jéggi saako yi loolu mënul nekk waaw. mais loolu mënul nekk. loolu mënul nekk c'est impossible mënul nekk parce que ñoom ñaar ñoo bëre ba jéggi saako waaw en même temps tamit xam nga sama doomu ndey euh, Alioune Seye 2. Ah, ngi wàcc. waaw di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci combat bu mu jëm parce que ndam rek moo ko jig waaw parce que tamit isaam lu ma lax Aline dafa sonn ci làmb alin làmb daf ko war a fay yàlla na ko làmb fay. waaw mu am xale bu doy waar. waaw non xale bu doy mais tamit isaam la Aline dëju wanag la gis na bu nekk. te bëre naa ku ne. waaw Aline moom su demee bay am lu muy xel ñaar ci kooku moom xam nga c'est inutile muy bëreeti. gërëm lan la gis na bu ne. mais mais Modou ci danger bi. non Modou yow Aline Anta. yow Alioune Seye su lamb bu waxoon dëgg day bëre ñi si kaw ñoom bomba ñoom Tyson ak ñoom Bombardier ak ñoom kii kenn da ko kenn da ko dàq bëre non moo daanta day sóob moo daanta day sóob dem Touba ko gën moo daanta su ñëwee fii dinañ ko door ba ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise Boumak mag bu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lépp lu Tabakker ci réhabilité wala réfectionné dañu Tuba taxaw établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ laa jox gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi, fondation élevé tabak Hule ak raax ci second œuvre bi nag ci di fekk électricité ak plomberie ETDR amno ay boutique